dañu dajé fi ci programme bu ñu PESERE programme de dafa coopération allemande GIZ ministère enseignement supérieur le ministère yu mel ministère énergie ministère environnement ministère industrie ay agence ak suñuy euh, université yi université bu Ndar université bu Bambey université bu Ziguinchor école polytechnique bu Thiès école supérieure polytechnique université de Thiès te ak tamit université virtuelle bu Sénégal ak ISEP bu Thiès loolu nag dafa indi ñu taxawal benn master boo xam ne day jàngale jëfandikoo énergie lu mel ne énergie solaire énergie éolienne énergie biogaz yu mel noonu mooy yu ñuy wax daal yoo xam ni énergie renouvelable la master boobu nag li mu wuuteeg yeneen master yi dafay master boo xam ni université yee ko bokk ñu koy jàngale ndoo loolu dafa am solo trop te programme bi li ñu ci waxoon yépp jëf nañu ko ndax programme bi ubbeeku na jëmale xam-xamu xale yi ci ubbi entreprise nga xam ne loolu lu ñu soxal la bu baax a baax tàggat xale yi ci defar ay projet tàggat xale jigéen yi tamit ngir ñoom it ñu mun a sawar mun a tamit am xam-xam ci énergie renouvelable fexe tamit ba université yenn seen ay yëngatu programme bi jàppale leen gis ngeen sax université Gaston Berger bu mu amee ay jafe-jafe programme bi indi na jàppale leen ci équipé incubateur bi fa nekk équipé tamit incubateur bi nekk université Assane Seck bu Ziguinchor programme bi tax na ren ñu ubbi ci ISEP bu Thiès benn filière énergie renouvelable nga xam ni baccalauréat bu teg ñaari at programme bi nag dafa ñu ak ay ministères yoo xam ne dañu mës di liggéey ak ñoom ndax ministère industrie moo ñu taxawal ñaari incubateur ministère bu énergie ñu ngi liggéey ak ñoom ci réacteur nucléaire ministère environnement tey ñu ngi jokkaloo ak ñoom ci cité du savoir am na ay tabax yu ñu fay def ngir ñu gën a mën jëfandikoo énergie bi te duñu ci perte lu bare yooyu yëpp dafay indi programme bi dafa nas

ndax looloy ñaareelu ponk plan Sénégal émergent te énergie renouvelable ponk bu am solo bu président Macky Sall tane ndax ci at yi jóge nañu ci fu suufee tey ñu ngi ci téeméeri kilowatt yo jël wala mégawatt yo jël ñaar fukk yi ak ñett yépp énergie renouvelable bon ma ngi gërëm di sante ñi nga xamni ñoo particulièrement gouvernement allemand.